xam na ni euh, jamono ji euh, coowal ci cinquante bi ñu gis ni euh, ki nga xamante ne moom mooy Adamo daf la ciy tudd. waaw man nag personnellement nit ñee may wax ni man ak gars yi ñu ngi la ciy tudd ak yooyu noonu kenn daal laa xamante ni soo sonal na ma trop. Euh, ba ñenn ci ay nit di ma woo di ma di ma clamé naan ma lan nga def Mbaye Kouthia ba mu lay euh, ba muy wax ci yow euh, bon je sais pas xam nga àdduna nag dafa nekk loo xamante ni lu doy waar la te dañu nekk ci réew moo xamante ni Sénégal la te Sénégal dafa nekk réew moo xamante ni dafa naqaree waxee Mbaye Kouthia man nag moom liggéey lañu ñu seq ñu tase ci terrain bi sequñu demalante sequñu dikkalante tey bu nekkee ci sama dëdd di ko yàq wala mu jël sama photo di ko claaj def yoon yoo xamante ni warul mbaxana doone benn fa la ñuy mujjee man ak moom parce que samay mbokk am na ci ñoo xamante ni des fois bu ñu gisee yenn yi duñ am leen neex même ñi nga xamante bi na ko ma ni man personnellement xaw ma ko mais yaakaar naa ni mës nañu wax benn yoon appel vidéo ko sama benn caméraman euh, fekk ñi ngi tourné bébé Binta émission mhm. mu ni ma Adamo laa gis sama ne ko wool ma ko mhm. parce que nit doo bañ sa moroomu nit Adamo ak lu muy saaga saaga ak lu muy wax wax ju ñaaw am na loo xamante ni euh, am na ko mhm. maanaam ñun boo amee cofeel ci yonent bi bëgg ko lool am cofeet ci Serigne Touba am cofeet ci Seydi Hadji Malick ñun du ñu def lu dul bëgg la ndax ñun dañu yar ci taalibe yaruñ ci diine yaruñ ci lislaam euh, donc loolu moom luñ luñ ko luñ ko gisal la ci ci moom kanta nag ak moom wax ji muy wax ci ñun man wax dëgg yàlla jàppalu ma ko dara xam nga lan moo tax mhm. parce que ñoom dañoo comprendrewul Adamo comprendre te il a bien fait lu tax ma ni il a bien fait mhm. ndax comme fexe na ba Sénégalais comprendre lan mooy C50PN bien vrai que nag am na ay wax yu ci nga xamante ni nit ñaa ngi ciy wax te lu ci bëree bëri bari amul mais moom am na loo xamante ni li mu koy wax am na ci loo xamante ni dëgg la am na ci loo xamante ni tamit dañ koy xoolaat parce que mbir bu fekkee ni nekkoo ci biir wala bu fekkee dañ ko jox ay document am na document yu nga xamante ni tey jii euh, peut-être ñun ñu signé contrat man signé naa contrat loolu duma ko nëbbu te bi may signé contrat lan moo tax ma signé contrat dama gis ni C50 PN euh, dafa am importance am importance ci lan ci sénégalais yi ndax buñ nee la dañuy fexe ba marché yi nga xamante ni tubaab bi dañ koy gagné wala turki yi dañ koy gagné wala étranger yi dañuy ñëw fi gagné ko yóbbu marché yóbbu xaalis bi seen dëkk ñëw jël ay sénégalais di leen fay ay salaire yu minime loolu la yu minime loolu lañ bëgg mu denc ci réew mi en tant que sénégalais ma doon jeune gis sama sama sama jeunesse ni ñuy faayte di reyante gu dégg bëccëg suba ngoon salaire yu baax mënuñu ko am loolu je me suis dit attends pour le Sénégal xaaral ma bokk ci ñi nga xamante ni tey jii wane loolu léegi nag loolu revenu yooyu nga xamante ni wala marché yooyu nga xamante ni sénégalais dañ koy am tubaab bi di ko jël bu ko sénégalais gagné tey sénégalais gagné ko ba pare jëlaat ay sénégalais ñu ciy liggéey loolu xaas bi fan lay des fii ci réew mi loolu képp ko xamante ni sénégalais yaakaar naa ni loolu war na laa neex loolu warta am coow wala leneen ak leneen kontaa liñ ciy wax nag naan affaire yi dafa rax affaire de politique man personnellement man je suis bu élection jotee bu ma waree votel Sonko dinaa votel Sonko bu ma waree votel Macky Sall dinaa war a votel Macky Sall su ma waree votel keneen dina votel keneen mais nanu bàyyi Sénégal tey jii ni muy politiquer dafa metti boo faralee Macky Sall da ngaa bon boo faralee Sonko yow yaay ki baax yow yaay ki gën yow yaay ki meilleur ki gën sunu borom rek ko xam ki baax sunu borom rek ko xam euh, bi ma gisee loolu nag mu gis ma gis ni c cinquante pn dafa doon loo xamante ni lu lu luy jariñ réew mi la ma ne ok xaaral ma signé parce que lii kat ndaw ñi war nañ cee gis seen bopp mm-hmm. mais man si ñëw ma ci accordu politique. parce que gis nga li wax ji di bari bari yëpp. man mën naa témoin li nga xamante ni moom la mag di wax. mag di bi ñu ko woowee téléphone sama kanam dañ ñu ko. contrat bi baal ñu envoyé la ko nga signé nga signé ko via numérique mag di na leen contrat bi ma ci gis. ay affaire de politique te loolu man intéressé wu ma li ma intéressé mooy fexe ba sénégalais yi nekk ci jàmm parce que tout ce qui est man bëgguma ko mag di wax na loolu sama kanam bi ñu ko woowee téléphone. ba daam bi ne ko bàyyil ñu dindil la loolu nga xamante ni moo nekk ci contrat bi partie boobu ñu dindil la ko pour nga mën a signer sa contrat mag di na leen c'est ok amul problème. man aussi tamit bi ma defee sama première vidéo sama deuxième vidéo avant may publier sama troisième vidéo on m'a appelé bi ñu ma woowee téléphone. ne ma astaghfirullah message dañ ma envoyé. ne ma Abdou Saliou dañu bëgg booy defaat sa troisième vidéo. ni ngay tagee xam nga TikTok booy dugal da ngay da ngay def h tagee kii bu la neex kii bi gën a kii nga tagee ko ne ma dama bëgg nga tagge 550 PN ak li ci topp ak yooyu defaat ci turu Abdoulaye Sylla pour nga tagge ko ma ni leen wax dëgg yàlla man duma ko def. ñu ne ma lu tax ma ni leen Abdoulaye Sylla xam naa ne c'est un homme politique parce que dafa am ambition politique nekk candidat ci élection 2024 yi su ma defee loolu damay trahir gis nga nag ak lu ak lu wax ji mën man lépp lu may def damay jiital. Sénégalais xam nga moo tax parce que ñun meluñu fi neen waaye nuñ fi mel aussi tamit sénégalais yi moo tax ñu mel ko. biñ ma waxee lool man ni daam bi ne ma après dinaa revenir mu toog ba ay 22 heures 22 heures et demie environ bëgguma jum mu ni ma léegi amul problème c'est bon tu peux euh, faire la publication sans pour autant nga tagg Abdoulaye Sylla ma ne ko merci beaucoup mm-hmm. donc dafa mel ni sunu borom euh, am na lu am na lu mu doon préparé wala am na loo xamante ni da doon da doon génn mooy co mooy coow li tey jii si toutefois ma defoon loolu damay trahir sénégalais yi dinaa trahir sama bopp aussi ma trahir sénégalais yi nga xamante ni peut-être tey nu ñu mel ñoom la mm-hmm. yaakaar naa mooy mooy coow li te peut-être ku mu doonoon ci ñun keneen boo gisee ni lii njariñ la pour sa réew di nga ci di nga ci di nga ci di nga dugg parce que loolu mooy li nga xamante ni moom lañ moom moom moom moom la Sénégalais bëgg ndax Sénégal tey jii bu ñu sañoon benn réew di ko gën a naat Sénégal bu ñu sañoon benn xale yi du ñu génn di tukki di dem feneen dañuy toog lépp am ci réew mi parce que Sénégal dëkk la boo xamante ni lépp lu fi nit bëgg mën ko ko am loolu dong la mais coow lu amul mhm. li d'abord bi mu euh, tàmbalee euh, ku ci mel ni euh, ñoom ñokkali dañoo génn di ki nga xamante ne ni moom mooy Las Gaye Ndiaye ba di ko sax menacer mais tey est-ce ñoom waroon nañu woon yegg tey foofu noonu ba di dem di ko mën a menacer ko waaw yow yaa ñu war yow xamante moom mooy Adamo. waaw xam nga euh, bon nit ku ci nekk ak ni ngay ni ngay ni ngay ni ngay fajee say problème nit ku ci nekk ak ni ngay ni ngay ni ñu la yare man sincèrement barke leeru alxuraan bu doonu toon euh, li ma li li ma li ma woo dem ci guddi peut-être ak bon peut-être xam nga Sénégal dafa nekk réew moo xamante ni des fois yii nii daciy baax pour Sénégal yi xam kii et kii kii et kii tey euh, ñoqal yi ñoqal xamante nañ nii dem naa tourné naa ak moom benn émission mais man xaw ma ko ci wax ju ñaaw gis naa ni nit kuy reetaan loolu nit ñi la mais ñun ñëpp xolal benn lanu peut-être tey wax ji mën na bari ñuy waxante lu ñaaw ak yooyu mais après dañuy toog autour d'une table ñu waxtaan euh, las gaa las gaa man miinuma ko bu baax mais à travers TikTok da ngay gis ni c'est un gars bu nga xamante ni yàgg na défendre Sénégal ñii fi nekk yëpp yàgg nañ défendre Sénégal mais pourquoi ñu bëgg a jël wax ji teg ko au benn kii rek C50PN. mais attends il y a combien de combien d' yu nga xamante ni ñoo fi nekk di promouvoir li nga xamante ni baaxul. 1xBet baaxul. one xbet ñaata ñaata ñaata xale la la la détruire ñaata xale lañ fi jox inscription war leen dem inscrire seen école ñu dem jouer ko one xbet ñaata xale lañ fi jox euh, seen xaalis paiement scolaire ñu dem jël ko jouer ko one xbet alors boo duggee ci seen bio TikTok yi ñoom ñëpp ak influenceurs yu ci bëree bëri boo duggee seen bio TikTok li ñu leen njëkk a wax mooy seetaan boo seetaanee vidéo ba vidéo bi dañ laa dugal sama lien sama bio TikTok boo duggee boo defee one xbet di nga am lu maanaam. Euh, bonusu 1 million wala bonusu 800 mille wala bonusu 900 mille alors ñoom ñooy influence jeunes yi pour dem jouer woon xbet alors ku ne xam na ni carte xaalis baaxul li ci yàlla wax xam nañ ko mag ñi jàngale nañ ko léegi pourquoi ñu bëgg jël benn coow boo xamante ni C50 PN man défendre ma Abdoulaye tey du ko défendre ëllëg parce que quel soit alpha moom Abdoulaye Sylla mosu ñoo tegante bët ñi wax ñi ñëpp mosu ñoo teg Abdoulaye Sylla bët lu dul benn photo a jël wax man signé naa ba ñëw sama carte d'identité joxewu ma ko. d'accord euh, euh, waa mais tamit euh, Abou est-ce que nekkul ni yéen tey dañ leen a corrompre parce que man dégg naa ci Adamo mu naan ñenn ñi dañ leen jox ay deux cent mille ñi ñi tamit ñu jox leen ay trois cent mille. corrompre <laughs> corrompre man xam nga lan moo tax kenn mënu maa corrompre. Mm-hmm. damaa judd fu ma war a juddoo macha allah. Mm-hmm. ñu yar ma fañ ma war a yare mm-hmm. ma doon ma juddu ci keppaaruk sëriñ Touba sama yaay yar ma fa ma waree sama papa yar ma fa ma waree yare ma bokk ci njabootu Serigne Fallou ci lu nëbbu ak lu feeñ. ma nekk ak sama grand frère liggéey ak moom Casamance def fa 13 ans ci 13 ans yi nag jàng yenn xaaj bi jàngale beneen xaaj bi maa ngi doon liggéey ak moom. ma gore lool doon nit ku am ngor. liggéey ak moom chaque semaine ma koy versel ay million mm-hmm. yaakaar naa kooku. bu ngor jugee ci moom dara du fa des man nit ku gore laa nit ku am sutura laa gis nga coow lee bari ñi naan ay deux cent mille ñi naan ay trois cent mille contrat bi dañ ñu ñu dañ koy renouveler bu weer bi deewee beneen weer mën nañu renouveler ak yooyu noonu lan ñu wax mm-hmm. mais publication am na ñoo xamante ne publication dañ leen fay cinquante mille ñi quarante mille ñii soixante mille ça dépend parce que xam nga compte yi nag bokkul. compte compte influenceurs yi bi gën a yéeg ak bi gën a am visibilité loolu la gars di xool ci selon loolu lañ lañ la la ñuy la mais wax dëgg yàlla man de a ce qui me concerne barke leeru alxuraan. Euh, fayuñu ma 300000. d'accord joxagum na mais jot la sa ñam dara. waaw mais déggoo li ma la non déggoo li ma la dama ne. Mhm. chaque heure chaque mardi ñun groupe bi ñu bokk chaque mardi. Mhm. boo publier ba vidéo bi dugg da jël lien bi envoyé leen ko ñu jox la sa xaalis. Euh, euh, ñu ne groupe bi actuellement ni dafa tas parce euh, que nit ñaa ngi roccee ko groupe bi dafa tas man loolu yëgu ma ko. yëgu barke ah, yaa déglu ma xam nga lan moo tax yëgu ko. Mhm, man 550 xam nga la ma la ma seeq ak ñoom. Mhm. bu ma publier sama vidéo ki ma war a envoyé sama lien ma envoyé ko. mais man wax dëgg yàlla ba démb nii may wax ak yow. gis naa ñu dugal fa benn texte texte bi dama ko liir nii rek génn naa par du xool kenn kiite ak kii kiitewul contrat moo leen tënk. Mhm.

Euh, euh, moom mooy seeni ay abone mais abu Saliou ba tey yow gisuñu la fi nga defee vidéo génn ne maa ngi baalu àq. xam nga tey dañoo nekk ci contrat. boo nee maa ngi baalu àq bu mardi jotee nga publier waat ba tey àq booboo ngi ñu ak ak moom. te comme contrat la nu nekk. te un mois la contrat bu a duré. mardi bi incha allah rabi la ñuy def suñu dernière vidéo. man parce que contrat la. <laughs> damay dugalaat vidéo bi dama koy dugal mardi incha allah su ma dugalee mardi sama vidéo ba pare Sénégalais yi man ci chaque jour ci baal leen àq laa dëkk xam nga la moo tax parce que dañoo dëkk di leen tooñ dëkk di leen tooñ mooy mm-hmm. euh, mën nga dugal loo xamante ni du lépp lay neex mm-hmm. man nga def loo xamante ni du ñëpp ngay neex du ñëpp ngay neex chaque jour bu ñu defee émission ba pare ñi commentaire da ngay gis ñii di la saaga ñii di la wax lu bon chaque jour boo dugalee vidéo da gis ñii di la saaga ñii di la wax lu bon donc man ma baalu leen àq te gef vidéo tey baalu leen àq suba ma xëy dugalaat vidéo C50 dama leen di tooñaat je préfère ma bàyyi ba lépp jeex am na ci ñoo xamante ay nit lañ dañuy dégg wax ji ku ko dégg kii li muy wax du ay waxu fen kii wax du waxu tappale kii li muy wax waxu nit dëgg laa leen sénégalais ci baalu leen laa dëkk démb rek ci mujj sama story TikTok na ma leen na ma ñëpp baal parce que am na ci ñoo xamante ne bëgguñu la ndax C50PN. Mhm. am na ci ñoo xamante ni dañ la bëgg ndax jëf ju baax ji nga doon def démb boo defee lu bon tey duñ fàtte jëf ju baax ji nga doon def. te man bu dee benn fan rek bu dee benn fan toog bëggal naa ko ay bu fekkee benn cent sénégalais sax bëggal naa leen. te cent sénégalais yooyu man gëm naa ni bëgg nañ ma quel que soit alpha bu fekkoon ni euh, dañ ma gis ci naka su dul noonu. Mm-hmm. dinañ am tolérance ni Abdou Salim mi bu dee benn fan ma suñu ko reetaan la waaw. Mm-hmm. <laughs> Euh, bala ma tàggatoo. Mm-hmm. damay santaat bu baax su ma suma suma suma yaay santaat suma papa santaat sumay grand frère. ñi nga xamante ni ñooy jàpp ci combat bi waaye santaat su may nit di sant képp koo xamante ni yaa ngi may bàyyi xel ci li nga xamante ni moom lay def Abdou Saliou nag ab taalibe la man ab ndongo laa di santaat fii nga xamante ni fa laa dëkk parce que li li li li may nekk Ndakaar yëpp ñaari lieu parcelle rek laa mos a dëkk mosuma dëkk feneen fu dul parcelle 26 24 fii yaakaar naa maa ngi fi bëgg a def 3 ans musuñu ma dégg ci lu ñàkk fayda musuñu ma dégg ci lu ci lu ci lu ci lu neexul yàlla ba ñii koñ ma dëkkal ci koñ bi sax des fois laay génn rek ne ma gannaaw bi mooy feeñtale xamuñu sax lan laay liggéey dañu may gis may dem ak ñëw rek xamuñu lan laay liggéey ñu nekk ñoo xamante ne nag ñu neex a dëkkal lañ waa parcelle maa ngi leen di xaar ñoom ñëpp 1 ba 26 di ñaan yàlla na fii yàlla def jàmm sunu mbër mi Modou Lo bu fekkee ndam lii combat bi mu jëm ndam moo gën ci moom yàlla na ko sunu mboroom may te mu doon lu sedd ci kawam di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké yàlla na yàlla guddal fanam ñaanal bépp kilifa diine yàlla na yàlla guddal seen fan di ñaan ci réew mi jàmm di nuyu sama sama doom ji sama ñaari doom yi nekk ci kër gi eh, seen yaay dañoo xuloo man ak moom eh, Nabou Kébé maa ngi koy nuyu bu baax moom suma xarit la suma lakkal la papa Kébé taalibe Serigne Modou Karab maa ngi koy nuyu di ñaan ci réew mi jàmm di wax ni Sénégal nanu bàyyi lu nu xamul di ci wax Adamo nag man sama gaay la gaay dinañ dama ko ragal ragal non non man man man man dawuma ay live xam nga lan moo tax mhm. ginnaaw ñi la gën a jege. Mhm. ñoom ñoo lay yàq saakantuma koo xamante ni xamoo ko. dëgg bu ko neexoon suba mën na def laayab ci man. Mhm. barke alxuraan non bu ko neexee laaw suba mën naa def live ci man. Mhm. bu live bu live bu ma livelee live xale bu am jom. xale boo xamante ni barke alxuraan Sénégal bokk naa ci jeunes yi nga xamante ni wallaahi alazim ba nii may wax ak yow yàlla na yàlla musal ci bii ak bii. Mhm. mais bokk naa ci jeunes yi gën a rafet parcours. Mhm. est-ce que xam nga ni man bu bu weesoo affaire bi man maa ngi yeneen maa yeneen business. man maa ngi def social chaque année damay def social ci ci at bi dinaa ko def ñaari yoon dinaa dem ci daara yi dinaa dem ci orphelinat yi. amul état bu ma mës a jël cent franc jox ma ko amul kenn ku ci bokk ci nguur wala ko bokk ci opposant ku mës a jël fukki dërëm jox ma ko man maa jël sama alal ak ñi nga xamante ni ñoom la ma yàlla booleel. aussi ma def parcours boo xamante ni ah du ma ni euh, jeune présentateur def na ko de waaye man maa ngi ciy sant yàlla parce que man fi fi ponkal yi jaar foofu laa jaar bu Boubacar Diallo Pape Cheikh Diallo. Padros Oxygène FM gi ñu génnee man fa laa génne jaar ci site internet yëpp ba suñu borom def ma ñëw si Dakar Buzz donc ñun mosuñu fee def lu ñaaw mosuñu fee wax lu ñaaw te man sax man du ma influenceur man buuju maan la buuju maan man buuju maan laa di leen ñaanal jàmm di nuyu Elmo euh, moom mi nga xamante ni moom moom xam nga xale bu doy waar la kii li mu ko xamal. <laughs> yow tamit maa ngi lay nuyu. di nuyu sama mbokk soosa yi sama mbokk joolaa yëpp sama mbokk séeréer yi suku non kole bébi jee kortanante tanante jëmmole maa ngi leen di chaar ñëpp di nuyu sama mbokk balante yi di nuyu sama mbokk séeréer yi di nuyu sama mbokk tukulóor yi yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi ci barke Cheikhul Khadim merci